donc li ñu nga xam ne moom moo moom la ñuy def fii tey moo di dañuy taxawal li ñuy wax fu ñuy jàngee basket mais njàngam basket bi nag yemul ci jàng basket dañoo bëgg a dàq li nga xam ne moo fi amoon nga xam ne xale buy defe ji football wala muy defe ji basket day bàyyi njàngam école am léegi nag ñu bëgg a boole ñaar yooyu yëpp loolu mooy académie bi ñu bëgg xale yi nga xam ne bëgg nañu basket ñu bañ leen ko xañ ndax njàng mais xale yi nga xam ne aussi ñu ngi jàng ñu bañ leen a xañ ñu fexe ba xale bi ñu booleel ko ci boppam njàngam basket ak njàngam école loolu mooy solo académique bi li nga xam ne nag fa la ñuy gën a taxaw moo dinañ leen jàngal ay langue dinañ leen jàngal lu mel ni arab ndax xale boo xam ne yàlla euh, musal na ko yàlla may na ko mu dem ci dëkk arab di basket li nga xam ne mooy làkk bi bañ na indil problème dinañ ko def aussi ci anglais bi ndax xale boo xam ne dem ci dëkk bu ñuy làkk anglais bu ko defee boo fay basket booy doog a ñëw rek di nga fekk nga mën a waxanteeg ñoom. d'abord di sant waa Rufisque yëpp di sant le maire Aliou si initiative mi mu jël ñu créer benn académie de basket dans la commune de Rufisque Ouest. mu nekk lu nga xam ne nii exemple la nga dañ ko war a sax jox yeneen communes yi ak yeneen collectivités local parce que yéen ñëpp xam nañ ko léegi sport compétence décentralisée la. Moy structures décentralisées telles que les mairies les euh, conseils départementaux nous devons dañoo war a jeunesse dans le développement du sport Ce qui bu bu au niveau de la mairie de Rufisque Ouest mu créer une académie de formation de basket Nous jël nous ci def di ko rafetlu de ko ci nous di ko ci gërëm di wax